Seex Fallu añ na fa Makka sànni jamra fon doj wa dem fa ka xaw makaama fa Seex Fallu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñi ngi am mbégte di santat yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi wa salaam ñaanal mboolem njabaruk Serigne Touba gépp jiital a as Cheikh Sidil Muxtar tey ñaan sunu borom gën a dëgëral taxawaayam ba naa li nga xam ne naa la ko lislaam rawat na yoonu Serigne bi mu àggale ko fu kawe njortam te mu ànd ko ak nun mbokk yi di am mbégte tey xam ngeen ni mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci ma Kazu Rajab Kazu Rajab bu ñu ko tuddee xel yu bare dem ci al Isra wal Mihraj waaye dem ci jëmm ju tedd ji nga xam ni moom mooy Cheikh Mouhamadoul Fadal ñu jaaree foofu rek di ki nga xam ni moo moo ko fi toogal di Serigne Abul Baraka yàlla na sunu borom gën a dëgëral taxawaayam moom tamit ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba jaaree ko Cheikh mu ànd koog mboolem njabootu Serigne Fallou gépp ñu nekk fii ci mbaar mi nga xam ni mooy eh, fi jotaay yi nga xam ne fi la ñuy amale mboolem xew-xew yi ci buntu ko Serigne Fallou tey nag ñu xëy ci bis bu tedd bii ngir ñëw fii ci xam ni fi la ñuy jàngee alxuraanul karim ci suñ ginnaaw tuuti ngeen gis fi nga xam ni fi la ñuy jàngee xasida yi kon. te alxuraan mu mel ni moo war a jiitu ci lépp ñu feggoon nag ak jëmm ju tedd ji nga xam ni moom moo fi toogal sëriñ bi ci fare ci wàllu jàng alxuraan te mooy si la dara Daraman kon duñ def lu dul bàyyi sëriñ Fallou Sylla Daraman mu nuyoo bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi incha allah auzu billahi samil alim min shar shaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim ixwata almustamiina fi kulli makan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal suñu kilifa cheikh ahmad al xadim di ñaan cheikh sidal motar suñu borom dolli koo yàggal dolli ko wéral dolli fee yàggal a cheikh abul baraka dolli ko wéral ak mboolem njaboot cheikh mahamadul fadil yëpp ba liñ naal ci liggéeyal Serigne Touba liggéeyal cheikh mahamadul fadil suñu borom dafa lent lu kawe jort mbokki Mafatihul Bichri di télévision bi nga xam ne moo fi tey ci bunt kër Cheikh Mouhamadul Fadel ci mbaaram mii nga xam ne fi la ñuy defee cérémonie officielle bi fi la ñu ubbee bis bi ci njàngam alxuraan xasida fi la njabaruk Serigne Touba gi di daje suba ak autorité ak mboolem invité boo xam ne jóge nga ci àddina bi yëpp bis bii tey incha allahu taala mooy fi nga xam ne ci la ñëpp daje muy kas du rajabin di guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar julli wàcc muy al isra wal miraaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéeg dem ba fa boromam subhanahu wa taala Cheikh Mahamadul Fadil feeñ ci jamono ñu di ko màggal di xew-xew boo xam ne jullit ñëpp ko bokk waaye particulièrement murid yi am nañ ci ak jégleel gu muy yàlla feeñal gi mu ci feeñal jël jëmm ju tedd ji Cheikh Mahamadul Fadil mu bokk ci njabootu Serigne Touba bokk ci yoonu mu murid di ko xam ne dimension ci l'islam ak ci ak nite maanaam dépassé woon na murid yi kese waaye ñëpp ko doon jariñoo ñuy ñaan suñu borom yokkal ñu ay tawféexam ak ay ngëneelam foofee mu nekk te taas ñu ci barkeem te yàggal fi ab xalifaam te defal ñu tawféex hada wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf Serigne Fallou Sylla euh, nuyoo bi am na solo lool mu mel ne tey jii la bisu màggalu Kazu Rajab ñuy màggal jëmm ju tedd ji nga xam ni mooy Cheikh Mamadou Fadel ma bëggoon rek ñu dugg ci lii nga xam ne yéen a ngi koy amal fii te mooy njàngum alxuraan bi mu mel ni jukki bi nga téye daa mel ni kaamil bi sëriñ Mahamadul Fadil moo ko bind waaye bala ñoo ñëw ci diggante sëriñ Fallou ak alxuraanul karim jooju di tax ñu xëy toog fii di jàng alxuraan ñu ñëw ci sëriñ bi ci tënk nu mu joxe woon importance alxuraanul karim moom sëriñ Touba. Euh, sëriñ Touba radiyallahu anhu dafa wax bi jaahil Mustafa dafa bokk ci dunduk sëriñ Touba radiyallahu am njëriñ gum amal njëriñ jullit ñi da caa bokk dundam gi sàmm gu muy sàmm alquran dafa bokk ci ay liggéeyu Serigne Touba sàmm alquran téyel ko jullit ñi yaatal ko àggale ko fépp foo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na yéen a ko fa. loolu moo tax bi mu ñëwee ci wooteem bii nga xam ne mooy ad daawa at tajdidiya al islahiya al muridiya te moom la nit ñi gën a siiwee di ko wooyee yoonu murit te mooy al islamul mahd diine rek la fi sëriñ bi indi ju raxu dara. diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu diine ju doxul dara la fi sëriñ bi andi te mooy yoonu jaayante wi sahabatul kiram àndoon ak yonente bi alayhi salatu salaam ñu leen digal ñu def ñu leen tere ñuy watandiku su yonente bi fa boo ànd ak ñoom ba ab léegi mat mu toog joxaat leen digal mooy inna allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ku nangoo joxe sa bopp joxe sa alal joxe sa lépp ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy ànd ak sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu rek moo manqué woon ay jamono ci Afrique sowu jant Serigne waat ko l'islam joo xam ne ay njàngaleem na mu bindoo woon dara soppiku ci yokku ca dara waaye indiwaat na fi ay jullit ñu nosu nag ñu am kilifa jiital ci seen kanam Serigne Touba radiyallahu anhu yaakaar ko ci seen tey yaakaar ko ci seen ëllëg mu di leen jëmee ca yoonu suñu borom di leen di defar jikko li ñuy wax makaarimul axlaaq innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq di tabax société inna ja'alnaaka fil ardi xalifa lépp luy dundal kaw suuf ci jikko yu rafet yi ak jaamu yàlla ak luy tax nit ñi am jàmm ak luy tax suuf développé yooyu yëpp mooy éléments yi ñu composé jox ko yonent yi alayhimu salaam ñu andi ko ci kaw suuf ba ci yonent bi ci mujj muy sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee nag ay mujaddidun wala ay mujaddidin ñoo fi ñëw ñuy yeesalaat Serigne Touba di kenn koo xam ne dafa ñëw ngir yeesalaatal diine. yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee nag dafa bokk ci ay yeesalam fonk alquran loolu moo tax mbooloo mu bari mokkale nañ ci daaraam mbooloo mu bari mokkale nañ ci ay doomam mbooloo mu bari mokkal nañ ci ay cheikham mbooloo mu bari mokkal nañ ci mag ñi njëkk a ci woote bi loolu moo tax mu Cheikh Mouhamadul Fadil teel a mokkal alquran teel koo bind bind na ñaar fukki kaamil juróom-ñett yoo xam ne sëñ Fallou sëñ sëñ Fallou sëñ Tuubaa la ko jox addiya wax nañ ne diiru Abdou Ndam itam bind na ci lu tolloog ñeent fukki kaamil fonk googu mu fonkoon alquran nag moom Serigne Touba doomam yëpp fonk ko Cheikh Mahamadou Fadel fonk ko jeexatal ci ab liggéeyam kaamil bi ñu tiim tey moo ko bind muy kaamil boo xam ne Serigne ko jébbal di kaamil boo xam ne itam ginnaawam euh, gën nañ ko yaatal waaye ci nekkam nañ ko muul ndax sëriñ Fall ci boppam dafa bind ay kaamil yu bari jébbal ko Serigne Touba. bi mu tàmbalee jumaa ji itam ginnaaw bu ko Cheikh Mamadou Moustapha tàmbalee mu amoon ab diir boo xam ne amoon na ay yu taxoon ba jumaa ji xawoon a taxaw liggéey bi muy Cheikh Mamadou Moustapha génnoon wàcc ab liggéey dellu fa boromam mu toogaat ab diir jugaat nag njug mu bees ànd ak murid yi ba taxawal jumaa ji ba mu àggee ci la bind ab kaamil xamal leen ne leen tabaxal naa leen jumaa bindal naa leen ab kaamil xàllal naa leen yoon wi sos jeex na sof rek fi des loolu moo tax kon liggéeyu Serigne Touba yëpp murid yi duñ mën a def lu may lu ñuy def ñu tàmbalee ko ci alxuraan moo tax bis bii Cheikh Abul Baraka eh, joxe ndigal ci ne bisu Kazu Rajab nañ fekk baas bi nga xam ne moom la gën a fonk fi lay dajeeg njaboot Serigne Touba ak sëtam yi fi lay dajeeg umma islamique bi ñi nar a ñëw ñëpp ci umma islamique bi ci torox torox suufi yeeg invité yi nekk biir réew ak bitim réew ak autorité yeeg gouvernement bi ñëpp fii la am rendez-vous ak ñoom ci cérémonie officielle bi. taataan fi ay kàddu ya ko ñor jox ko ay jëwrinam li ko ñor lépp fii la ko defee moo tax baas bi baas ba mu la ñu kilime ko kilime ko def ci ay moquette def ci ay sonorisation lépp lu ci war a am mu am ci mu nekkoon ginnaaw fii la gën a fonk kon nañ fi jàngi alquran ji ci ndigalam loolu moo tax at yi yëpp ñun lañ def ñuy jëwrin ji loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax baax ndax ñun Serigne Touba radiyallahu anhu la mu doon liggéeyloo suñ maam sëriñ Mor Yacine Sylla sëriñ Cumbuleen mooy alquran ndax bi sëriñ Tuubaa ñëwee dafa wax de bi mu yilif jamono barakatul quran mi ko fekk ci loxoy sëriñ Mor Yacine mu jébbalu ànd ak sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi dafa waxoon maam Thierno ne ko ñiy door a àggal seen allo bala moo bala ñoo xam-xam nañ dem ci sëriñ Cumbuleen xalamu ca doomam ndax dafa barkeel ndax ku fa jaar da nga barkeel sëriñ Cumbuleen sëriñ Mor Yacine mooy suñu maam moom la sëriñ Tuubaa dénkoon liggéeyub ku a mokkal ci daara sëriñ Daam Abdourahmane da nga jaar ci daaraam barkeelu fa a sëriñ bi yebal la fam la yebal bi mu tam ak njabootam ak Cheikh Massile Fati Xari Sèye Ibra sëriñ sëriñ Tuubaa loolu sëriñ Tuubaa loolu sëriñ Fàllu woon na ñaare doomam yi sell ya sëriñ Mahamadou Mamoun mu mag ak sëriñ Cheikh Ummi yóbbu leen ci ëttub Seex Masila Fatixa yi foofee ci ci la daramaan ñu doon fa jàng alquran ba néega ne ay sëti Sëriñ Fallu dañ fay ne sëti njabootu Sëriñ Tubaa gi ak doomi Sëriñ Tubaa yi ñëpp jaar nañ fa xëy na ko bu ñu yëkkatee waatee cërub alquran jox ñu ko du ci ñun waaye ci waajur yooyee nga xam ne ñoo àndoon ak Tubaa doon ko liggéey ci alquran loolee moo tax xëy na kon ñu féetale ñu ci doon te néew nañ ci doole waaye ñu yaakaar ci seen barke ak seen i may ñoom ak seen diggante ak fas yéene fee doon ay taalibe fas yéene doon ay takk der ci sàmm alquran ak jàng fi ay kaamil yoo xam ne lim bi léegi-léegi mu àgg téeméer léegi-léegi tam mu yées ko waaye danañ fi yandu huit heures tàmbali jàng al alquran ba julli tisbaar ñu def xatmul quran bi ñaanal Cheikh Abul Baraka naka jekk daawuñ ko def waaye ci màggal yu mujj yi lañ ko tàmbali diggante ñetti at ci ginnaaw rek ci xilaaf ak Cheikh Abul Baraka ci lañ ko tàmbali ndax dañoo gis ne. Eh, Cheikh Cheikh Mouhamadul Fadil dafa nuroog Serigne Touba ci lépp te màggalug Touba alxuraan moo koy ubbi moom lañ koy waajale moo tax ñu def ay commission yoo xam ne ci bu Kazu Rajab ñëwee commission yi bare bari ngir waajal màggal gi da caa am benn commission boo xam ne mooy commission culturelle Cheikh Ahmad al Badawi doomi Cheikh Mouhamadul Fadil moom lañ ko mujj teg ci ay loxoom ci atum ren mi ya ko jiitu woon ne ñun ñi bokkoon nañ ci commission culturelle ba waaye léegi nag mboolem njàng mi ñu nekk. ak mbooleem waxtaanee kër Cheikh Mouhamadou euh, lu aju ci Cheikh Mouhamadou Fadel ci magal ci màggal Kazu Rajab loolu lépp dénk nañ ko Cheikh Ahmadul Badawi mi nga xam ne moo yor Rawdu Rayaahiin di saytu mboolem lu aju ci xam-xam ci màggalu Touba ci commission màggal Touba bi nga xam ne mooy comité d'organisation màggal Touba pàcc xam-xam ba muy raw Rawdu Rayaahiin Cheikh Ahmad Badawi moo ko jiite moom lañ delloosiwaat kër waajuram gi itam pàcc bi ci xam-xam moom la ko Cheikh Abdoul Fatah ak Cheikh Mouhamadou Bachir ñi nga xam ne ñooy jëwriñ si ebo moom lañ ko teg ci ay loxoom moo tax ñun ñii moom lañ fi nekkal sëñ Abo lañ fi nekkal ñuy jàng alxuraan boo ko boole koog murid yi kuréelu alxuraan a ngi nii kuréelu xasida ngi suñ ginnaaw ñu nekk fi seen digal bëgg daal liñ fi jàng lépp ñu teg ko ci loxoy Cheikh Mamadou Fadel mu teg ko ci loxoy Serigne Touba mu teg ko ci loxoy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tasaare ko ci jullit ñëpp tasaare ko ci àddina bi ndax sëñ Fallou dafa waxoon ne moom day ku yaatu ku yéene ñëpp jàmm moo tax ñëpp ci xaj ñu ngi ñaan daal jàmm ci àddina bépp mboolem ñu nekk ci bitim réew di ay jullit di ay di ay sénégalais la ñuy wuti yàlla nañ ko am ci barke Sëñ Fallu bis bii ku nekk ci bitim réew loolu la fa teewoon jafe fa ñu ngi lay fasal ci darajay alquran ji ci darajay Cheikh Mahamad Fadel ñu am la ñuy wut te ñibbi si jàmm ci seenu njaboot ñi ngi ñaanal itam ñu wéradi ñu wér ñu ñàkk am ñi am lu ñuy yóotu ci dolliku seen diggante seen borom ak dolliku seen diggante ak seen addina lépp yàlla defal leen ko ci barke Cheikh Mahamad Fadel barke Kazu Rajab barke bis bi ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen ñaan seen télévision bi mu daj kap muy Mafatihul Bichri bi nga xam ne mooy caabi mbégte di xasida gu rëy goo xam mooy mooy xasida sëñ Fallou ci lañ lem mbirum sëñ Fallou ngeen tuddi ko seen télévision bi yàlla na yaatoo na mbiri sëñ Fallou yi barke Cheikh Ahmad Khadim haza wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ah jërëjëf sëriñ Fallou mu mel ni leeral nga lu am solo mel ni waxtaan am na solo loolu ndax eh, du hasard nga toog fii ji jiite njàngam alxuraan bi ni nga ko waxee léegi sëñ cumbaleen mi nga xam ne mooy sa maam eh, doonoon ku yoroon barkeb alxuraan ni nga ko leeralee léegi ci biir wax ji kon loolu am na solo lool mu mel ni ñu bëggoon nga dikk tuuti rek ci um, sëñ fallu ginnaaw téere bii nga yor wax nga léegi nii bind na ñaar fukki kaamil a juróom-ñett te mel na ni kaamil bi nga yor ñu mool ko mu taaru lool rafet lool am mbind ma lépp mu àndoon ci ak sëriñ bi ci jébbal ko léppam nga dikk ci diggante sëriñ Fallou ak alxuraan ci tënk rek ngir ñu barkeeloo ko ci bis bi sëriñ Fallou. Cheikh Mahamadou Fadil ak xam-xam Cheikh Mahamadou Fadil. jàng naa alquran ci li tolloog fukki at yi mokkal ko bind ko def ni kilifa yi daa def ku mokkal alquran bind kaamil ñëw na alquran bi sëriñ Touba demee ci géej gi ba dellusi fekk na ko mokkal alquran ci loxo si Ndiame Abdourahmane Lo bay jàng xam-xam ci maam Thierno Ibrahim jàng ci Serigne Mor Borom Sam waaye nekk koo xam ne ab gëstukat la itam ci mboolem xam-xam yi nga xam ne nekkoo na diggante Mauritanie ak Sénégal te ay naari gànnaar daa ko fi andi doodut ku xam ne dafa laxas jàngi waaye xam-xama laxas fekkis ko ngir barke baayam moo tax bind na ay xasida yu bari bind na ñeent fukki kamil jëbal sëñ Tuubaa ñaar fukki kamil juróom-ñett ci loxoom wax nañ ne sax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu day li ëpp lim daa jàng kamil sëñ Tuubaa leen la ba muy dem ci géej gi moom la daa duruse ba ca mujjug njaareem sax moom la daa duruse ginnaaw bi te wax nañ am na ci yeneen kaamil yu mu daa jànge waaye daa mujj woolu ay bindkat bindloo leen boole kaamil yooya ak kaamil Sëriñ Fàllu ba mu ko bindloo tànnloo suñ borom suñ borom tànnal ko kaamil Sëriñ Fàllu wax nañ ne kaamil Sëriñ Fàllu la mujj di jànge alxuraan moom Sëriñ Tuubaa kon loolu ak jagleel la goo xam ne Sëriñ Fàllu am na ko ci ci Sëriñ Tuubaa waajuram wax nañ ne te lii may wax nii maa ngi ko déggee ci Sëriñ Afi Ñang Sëriñ Afi ñeena nee na ci mujjug jamonoom dafa boole ay kaamil tànnaloo suñu borom kaamil bu muy wétli ko suñu borom tànnal ko kaamil suñu fallu kon mën nañ na ci kaamil suñu fallu la mujj di duruse diirub géej gi nag moom kaamil suñu Tuubaa la daa duruse moom ba bi muy cëppeelu ci géej gi moom la yoroon mosu ko tàqale ko ak kon nag loolu ak jégla la xam ne Serigne Fallou yàlla defal na ko ci Serigne Touba Touba gi ubbi na fi ay daara moom Serigne Fallou tabax ko ñi fi daa jàngale ci ndigalam am na ci kër yoo xam ne moo ko tabax yóbbu fa ay njabootam ay daara ci yoo xam ne itam ci bitim dëkk bi la foofee ci ci lay itam yóbboon na fa ay njabootam daa leen gana ji at mu jot daa toog ca lalu Cheikh Moussa Faty Xariba fépp xam nekk na fa sëñ Fallou safoo leen daa fa dem tànkam yi tedd yooyee di fa wisaare barke boobee Sëriñ Tuubaa def ci moom daana dimbali itam mboolem ñu yoroon alxuraan moom ci boppam itam bind na ci xam-xam loo xam ne foo yi gën a raw ci xam-xam xam nañu sëñ falu du moroomam jànkat yi bind na ay xasida wolof bind xasida yu jaxasoo wolof arab bind ay xasida arab def na ay ay ay ay ay ay ay téere ay rasailam boo xoolee lettre Sëñ Fallu rek arab yu rafet la gis naa benn boo xam ne a Cheikh Mouhamadul Hadi euh, Touré moo ko bind euh, a Cheikh Mouhamadul Fadal doon ko tawat mbirum jamono ji ak ñoom kilifa diine yi nañ la ñu war a ba sàmm diine waaye risaale bi mu ko delloo risaale bu bu rafet bu xay la boo xam ne da ngay xam ne Sëñ Fallu mi ku jàng la am na itam ay ay bindante yoo xam daanaka ko baax am na ay bidant yoo xam daanaka bi rek alaaji ah, Cheikh Ibrahim Niass ay muraasalaat yu bari la daa def ci wàllu arab yoo xam ne boo ko gisee da nga xam ne sëñ Fallou tegi jàngkat piir la tabax jumaay Tuubaa ji moom àgg nag symboliser ko ngir diine grande mosquée gee nga xam ne tey jii mooy jumaa ji gënoon a rëy ca dakaar xam naa ne jamono ji yaakaar naa bu Masaalikul naan àggee jëpp mu ne jenn jumaa dana gën a rëy Dakar waaye mooy jumaa ji nga xam ne waa Maroc ñoo Sénégal wala jàpp dañ ca liggéey ba ca jamonoy président Senghor at mu jot sëñ Fallou daana ca def ay millions te booba mi ngi liggéey mi ngi liggéey jumaay Tuubaa ji nekkoon ko yaatu ko xam ne ni mu jëfalee alxuraan jëfale ko sunna jëfale ko xam-xam la a na tabaxee nit noonu la doon jàppe ci société bi ci mboolem branche yëpp nit ñi wopp da leen daa faj ñi amut ay luñ tudd mu leen daa tuddal doom daa takkal nit ay soxna daa xotti nit ay yére mayee ne ñeenti téeméeri oto lu baax lu ne def na ko yóbbu na lu mat junni nit yu manqué tuuti Makka baytulaahil xaraam tabax na daal société boo xam ne lépp nga ci ndax moom nit la woon koo xam ne karamatul insani la doon xool ci ci doomu aadama da daa wax ne ku yàlla rus te bind ngay doomu aadama man rusuma laa teral ma dax ak jotaaleem akub jokkoom da koo yemale wutoon ci jullit kese da koo yemale wutoon ci murit kese da koo yemale wutoon ci sénégalais kese da koo yemale wutoon ci arab kese da koo yemale woon ci nit ku africain kese fépp lu baax nekk Sëñ Fallu andi na ko ci boppam am na doomam ju tudd Cheikh Ahmad Badawi muy ki nga xam ne moo jiite commission culturelle màggalu Kazu Rajab Égypte la dëkk aw turandoom wali bu siiw la am na ku a wax Cheikh Ahmadou Rafai ci ñi gën a siiw la ci borom xam-xam yi di ñu aarifoona billahi ci réewi arab yi soo xoolee Chérif Fanta Madi ci Mali gi la nekk noonu la ko tappe tudd ay wàllu yu yàlla tudd ay seexi Sëriñ Tuubaa ak seex Masamba Jóob Moodu Masamba doomi sëñ Masamba Jóob Samb noonu la ko tappe tudd ay mbokki Sëriñ Tuubaa maam Cheikh Anta borom saam tudde Cheikh Ibra tudde ñëpp rek ñu yoona mu tudde lislaam xaritoo woon ak ñëpp di nitu xam-xam koo xam ne fii la daa ñëw naar yi di jamanteeg moom ci xam-xam am na benn naar bu mës a ñëw euh, di di toog ci moom ba mu jàgg mu mel ne am jël ay bant ak yu mel noonu daal di kii doonu fal lu ne ko wa fi'lu ma la yanbaghi la laa la yanbaghi la siyama atandaghi daanaka lu lu lu amul solo de daanaka amul solo rawatina nag shérif bi ba léew di ab tàndax noonu la gaa yi woon ci way am na benn naar bu mos a ñëw moog Cheikh Ahmad Moustapha ne ne leen hal fiikumoo hal fiikumoo nat hal hal fiikumoo nat bun yamunnu alay bi mbubbu aw bi baxa aw bi mbubbu aw bi tubay man yafalan moo haza ala ajilin dana la an ajil qabla taroyu si fay bayit yu arab la am na ci yéen ku baax koo xam ne ndax mën na maa may am mbubb wala baxa balaa yàgg rek incha allah danaa ko fay am naaru gànnaar la woon sëñ Mamadou Sow la ko waxoon ak sëñ Fallou ak sëñ Modou Xaya sëñ Fallou tontu ne ko tontu ko ne ko ne ko yaa muflixan faa'iqan yudwil balaaxata tey ndaxam bu bëgg baxa yomboon na daaw daaw waaye du taw waaye nag fa mu jeexale mooy fab ser bi andi nag danaa la ko may ne ko ah mbëbëg baxa de yomboon na daaw waaye ran nag yombut waaye nag man bégal ne man waruloon naa la ko te dinaa la ko jox bu yàggut rek sëñ Fallou ba mu ko amee daal di koy woo naar boobee jox ko ko noonu la daa toogee fii ci këram gi tam ñuy sàkket sàkketi xat ñuy sàkket ba ca digg ba sàkket yi jeex ñu ñu ñu mel ne tuutee des ci xat yi ñu bëgg koo di ko def euh, loo xam dañ ko ràcc mu xaw a yaatu sëñ Fallou génn xool daan waay dañ teppe waay daan daan ne in lam yumkinu xat faggataxu yuslahu fii waaye bu leen ko rataxu su fekkee xat bi jàpp ni wut sàkket leen ko mu baax rek la ca des ngeen def ko gi tax noonu la meloon euh, daana wax itam ci xekamam yi man shariba saaya bi duuni miskiti isa takallama fa qul huskuti maanaam naan ataaya de boo ko yoree te amoo miskit moom daanaka jël nga koy naan rek kuy naan ataaya te du te jëfandikoo miskit boo waxee yow ne ko ah yow daal xamoo luy ataaya bay ba nga noppi yooyu yëpp ay xikam la woon moo tax mu ne ala wa in kasurat fudooli eh, ala wa in kasurat fudooli maa marwa man kat su fekkoon ne na mën naa ko man doon naa ko laabir laabir ba bari kafe tam kenn du gis ci man lu may ak njomb lu baax rek laay def moo tax benn bis mu xool boppam doon Serigne Touba tabax jumaa ji adduna di ko dikkal lu baax lépp di ko dikkal mu sant yàlla ci ni ko yàlla def mu jàkkaarloog jëmmam mel ne ku jàkkaarloog moom naan ko fal tahmadillaha rabbal arshi mawlaaka li annahu xayra yi daarayni awlaaka id kullu yawmin tara ma tastainu bihi min amri dundaka aw li amri uxraaka daane ko ayow si ayow wàllu mbakke santal yàlla ndax yow kat fii nga toog fi ne lu baax àdduna ak alaxira mi ngi war wala si caw kon waroo def lu may sant yàlla ci yàlla mi la tàggatal àddina ak alaxira te nag dafa waxoon ne moom shafku dumu'i li hubbil qadimi fardan arahu gis na ne amul ci àddina lu gën a farata ci moom ginnaaw bu defee farata yàlla yi maanaam toog ba mu yàgg mu yàgg mu xool li yàlla def te jaarale ko ci Serigne Touba ci jëmmam ji nee na mu tuur ay ronkoñam ngir sante ko yàlla loolu faratala la boole la ko defoon boole ko ci ay farataam kooku ma Cheikh Mouhamadou Fadel yàlla nañu ko yàlla fayal. Serigne Fallou Sylla Daraman Ah, wax ji am na solo leeralaat nga lu bari it ci sëñ Mamadou Fadal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di jégalu it ci dog gi njàng mi waaye lépp rek ngir gën ah, waxtaan ak ku sell kii nga xam ni moom lañu ñu tey ngir di ci jéem a jàngat ci ay jikkoom mën nañoo jariñ moom sëriñ Mamadou Fadal waaye it ah, ku bind defe naa ni ñeent fukki kaamil suñu xëyee alxuraan mooy li jiitu ci seen lépp ndax moom mooy lim gënoon a bëgg ndax defe naa ni ku def lu mel nii amatut lu gën lu gën ci moom lu lu ko gënal defal jiital ko jiitalal ko ci léppam alxuraanul karim moo tax sëriñ Abul Baraka jox sëriñ Muhammadul Badawi mboolem bis bi ñu taxawee ko alxuraanul karim jiital ko ci lépp moo tax sëriñ Fallou Sélé fii ci bundu kër sëñ Mamadou Fadel ñu teg ko fi ngir mu saytu njàngum alxuraan moom kon li lu am solo la kon ñi ngi sant bu baax di gërëm mboolem ñi nga xam ne ñi ngi teewlu seen télévision ma Fadel Bichri di leen wax ne ñi ngi fii ci Touba ci màggalu Kazu Rajab 2016 di am mbégte lool ànd ak yéen ci yeneen jotaay yi nga xam ne war nañ ko amal incha allah ci jikkoy Cheikh Mamadou Fall nee naa leen du jeex dañuy wax ba màggal gi jeex rek ñu jëm ñu bàyyi ba déwén incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu na fa Makka sànni jamra fon doj wa dem Arafa dellu umra dem na Safa jama sama fa ka xaw makaama dem na langale fa Cheikh Fallo min sula ngañati yaadi suukar maamam sa bali jël na ndam la bambani fallu laayi fallum yàlla ala ci Mbakke bu seyni jaayam bambadi baayam fallu di biyaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya